soo seetaanee TRRC di dal sol baaji dal na Gambien yu bari because TRRC biñ ko seetaan lepp luñ fa doon gis su nekké ne lo xamné la lu ni rafetlu la du lu bari so te ñun ñëpp ñu ngi si réew mi way defuñ ci kenn dara amu kenn ko xamné ni tek nañ ko ci daan ci liñ gisagum so sol baaji tam ise Gambien deug la rong na daf daan liggéeyal Gambien mu ngi doon def lu rong mu ngi doon def lu jub mu ngi doon def lu rong waaye tam li ko dal dal na Gambien yu bari yoo xam ne nii defuñu leen dara te ñu ngi fii nii ba tey TRRC gisaguñ mu ñuul gisaguñ mu xees su kenn xamagut. waaw ah, su ma xalaat si Sol Badji moom nekk loo xamante ni dafa war a bett nañu ñi doomi Gambien la xam nga lu xewoon xew na ba pare jeex na ma lu ma wax kañ moom ganaaw Gambien si ñu baal ko rek xam ne ku nekk ay waaw lu amon mom amna ñaanu ñaanuñ mo mu amaat waaw pour man nañ ko jéggal rek waaw. liñ def nak mom ñaawna na ñaawlu nañ ko parce que amna pur right pour and ak président anywhere su nekké ne mu ngi dem because lolu mo nekkon wa waaye su jéxé li waron moy mu delsi because ay moromam ñoo fi nekk wa nak su démé dem nak toga toga toga tok be a su su boba su ñuy su fessé lo mom moko tek bopam su ko loi jégalee tam des na si ñom parce que tiyaaraat si dañ ne bu fi amat lu amat so lu amat nak ñom ñoom suñ bokkee si ni ñooñu suñ leen jégalee kon benn tey noonu la suñ leen jégalu tam ñom ñoo tek seen bop loi wax diga diga ni mom la ay daf ko xam nga bu nekkon sogom comme amna yo xamantene yu bari du lon xappun waye sante yalla man da luma wax nako ko gars rek waaw nako ko jegal bu baax